ñu bëri ko ci commune yu nekk ci Pikine ak li ko wër ngir ñëw exposé ci foire bu caaro yi mu nekk foire ba njëkk loolu nag nekk banneex ci exposant yi ngir ñu valoir seen expertise locale ci domaine bi ñu nekk. bi formation bi jeexee ñu am suñu diplôme bi ñu déggee foire bi dañu ni duñu def formation bi rek toog suñuy kër garde suñu xam-xam déedéet dañ koy évoluer exploiter ko. donc euh, defar suñuy produits yi nga xam ne moom lañ jàng en yi ñu fii au niveau de la foire pour euh, jaay ko. autorités yi war nañ ci dugal seen yoxo ngir ngir ñu ngir ñu soutenir champion locaux yi lu jëm ci wàllu promouvoir ak valorisation économie locale. loolu tamit dañ ci profité di ko wax autorités yi di leen wax ni leen ñun artisan dañ ñoo néewal doole trop te yaakaar naa koo xamante ni. Euh, euh, say branche cent vingt cours de métier la kooku bu génnee ci réew dara dootu fi des donc ñun war nañ ñoo valoriser war nañ ñoo jox suñu gëdd bu baax a baax a baax a baax sur mer am potentialité bu mu bugg a fësal looloo waral ñu amal bile foire. bu ñu nee bu ñu waxee leneen ak leneen am na ay produits yu bëree bëri bëri yoo xamante ne mi ngi ci biir Thiaroye sur mer maanaam Thiaroye li mu denc Thiaroye sur li mu ëmb moom nañu teg ci benn assiette muy foiru Thiaroye sur ñu ñëw indi ko ñu exposé ci fàttali foir bu njëkk ci Thiaroye sur Mer daal ko amal ci contexte bu métti li ko waral rek mooy dañoo. seetlu ne dafa am ay limites ci wàllu organisation communication ba ci koppar gi.